wax ne kii dina fi def lii wala kii dina fi def la parce que loolu moom bu yóbboo nit ñi Sénégal yi gën xamal seen bopp ne mën na noo changer mais nag dara wóoruñu ne ne bu gaay bu ñu changé nit ñi dina dina soppeeku mais Mame Ngor est-ce que mën nañu am confiance mhm. ci les politiques mhm. euh, bu ñu gisee actes yi ñuy posé comme ni nga ko rappelé léegi nga xam ne kuy ut nguur la ngay wax ak mhm. boo toogee euh, dafay safaanoo ak euh, bëgg-bëgg askan wi non le les les de des des des prétendants gars yi li ñuy wax il n'engage elle n'engage que ceux nous en avons des preuves. de multiples preuves. gis nañ fi ay ñoom Abdoulaye Wade gis nañ fi Macky Sall loolu moo tax keneen ku ñëw mën nañu am yaakaar ci moom de mais gëm ko à 100 pour cent mënuñu ko. mënuñoo fexe ba nit ñi gëm leen à 100 pour cent mën nañu am ay discours yu baax mën na ay programmes yu baax mais pour ñu gëm leen il faut il faut les voir à l'œuvre parce que sénégalais ay sénégalais leen comme ñeneen ñi ñeneen ñi aussi lu nekk dig nañ ko dig nañ ñu ko fi. dig nañ ñu diggatinu euh, fii rupture wax dégg nga fi rupture dégg nga fi gouvernance sobre et dégg nga fi soppi lu nekk dégg nga ko fi. Mm-hmm. mais heure bii gis nga fi nekk. Mm-hmm. puusuñu paasuñu tey nag ñeneen ñëwee ne dañuy changer mën na nañoo am ci yaakaar ci ñoom. d'accord. waaye pour ñu gëm leen à 100 pour cent moom du yomb. d' alternance la ñu mën a glorifier wax nga ko. Mhm. Euh, bu ñu gisee yenn pratiques yi dafa mel ni. Mhm. demuñu dikkuñu. Mhm. rupture la la ñu woote woon comme ni nga ko waxee. mais bi ci gën a fës actuellement nii. mooy politique yi ni ñuy def ci géewu politique bi muy violence bi nga xam ne dafa commencé tàmbali. te ñetti weer képp moo des ngir ñu amal élection locale yi. est ce que loolu tey jii nii euh, du nekk encore une fois peut être éternel recommencement. ci pratique yi nga xamante ne les hommes politiques. dañ koy doxal lépp rek ngir bëgg a ut nguur. waaw éternel. kii nii parce que li mm-hmm. est-ce que ñii ñëw du ñu nekk déception. wala peut-être euh, ñu jiixi jaaxal ci ñoom. man dama def ne aussi su fekkee ne population yëppam éduqué nañ leen bu baax. ñu mm-hmm. mën a am capacité def de bon choix te kooku ça passe par mm-hmm. l'école. normalement waruñu am ñu hésiter su fekkee ne ça ñu ñu reconduire. mais su fekkee ne ça ne ñu pas ñu ñu ñu ñu ñu folli. ba moment bi ñuy am lu baax. parce que man bëgguma aussi nit ñi di di di di cantonné wu. est-ce que ñii suñu ñëwee mais ñëwaguñu on leur donne la chance de le faire. mais suñ ko deful nag ñu am capacité dindi leen. mais mais le problème des fois euh, population yi du ñu def euh, confiance ci candidature indépendante yi ci ñi nga xam te ne nii ils ne font gis nañ ko ci élection yi ñu jàll. donc loolu. expérience la boo xamante ne ni dañ koy gis saa su nekk mu mel ni kon population yi ñoom. situation bi ni mu mel nekkee ni ñoom aussi la neex. waaw neexu leen mais dañ leen joxul parfois aussi quoi qu'on dise aussi on n'a pas atteint un seuil critique de personnes yoo xam te mën nañu analyser au plan politique. Mhm. def de bons a nekk un préalable pour que. nekk ay choix mhm. a ñoŋ ba nga nekk ay su fekkee